to. We're calling all parents to bring their kids. We got a lot of surprises for you, a lot of gifts, a lot of free ride. Singati will be there to entertain you and give you maximum music. Wow, all of that? Yes, all of that. Woo, I'm definitely gonna be there. 10, 4 p.m. Yes, Dream, Dream One plus one. beautifiers of our homes. One Plus One has the best collection of various home furniture and items of perfect selection. Discover quality and durability in what we offer.

ak téléphone ak it palador ak maxana ak a shirt te ki nga ne incha kii seen loyalty programme bi hmm. du compétition de te li nag boo ko buggee am hmm, fan dem customer care a Kairaba Avenue hmm. wala nga dem eh, customer care a Bara wala customer care a Basse wala customer care a Birkama man ni jaay nu maa dem ba xam ne xam naa ko yéen ba ngay bos star ñu wax la ñaata point nga am. ñu kan mu yor kon ma dem bokk ci ndax xewal gën a yokk suñu. fay gën a bëri si maa ngi demal la demal ni gënee bëri rek sa xewal gën a ak Qcell. Qcell suñu boss The Gambia's Quality Network. Reliance Financial Services xam nañ ne dimbalante mo yokk koom-koomu réew mi te it dàq ñàkk suñu biir ba tax nañu yombal te it gën fee gaaw la yónnee wala jot sa yóbbante xaalis ci réew mi yëpp ci bu sa benn bouton rek nga jot sa xaalis ci saasi ba tax na Moussa yaa ngi nii ci Banjul di yónnee xaalis contracteur bi ca Basse Ablaye yaa ngi nii Serekunda di yónnee school fii ci doomam yi ca ay Aïssatou ngi nii Brikama di yónnee yaayam xaalis ca Soma moo doo ngi nii farata ne di yónnee nijaayam xaalis ca baara fépp fu waaye mun a ne mun ngaa yónnee wala jot sa yóbbante xaalis ndax Reliance Financial Services dañoo am ñaar fukkaa ñaari banqaas ni si place yu baax ci réew mi yépp doo sonn doo xëccoo ci njëg lu yombaa yomb kon yóbbanteel ak ci lu yomba te gaaw Thiamène gëj a gis lee jigéen sama yow moom gëj naa laa gis li yow bii rafet na bi bii kañ la nii rap ak jàmm waay mbaa incho nga ko kay ah, mais ma jaama yow insurance dañuy fay déedéet Gambia National Insurance Company ca Kairaba Avenue ñu bokkuñ ci ñooñu de ñooñu ñooy ñaan lu weesu fanweeri at ak juróom-ñaar ñu ngi ci biir réew mi di ñu aar suñu wàllu moto yi kër yi yoon yi tukki yi sa xaalis sax dañ koy aar déedéet xanaa waaw waaw ñu wóor lañ nag te mun seen liggéey seen teewaay ci biir réew mi yokk na fi kóolute de loolu de gis nga bi ci gën a tee neex nag ñoo gaaw a fay yàqu-yàqu. dañooy fay. dañuy fay yàqu-yàqu ci ni mu gaawee. boo eboo daal dawal dem incha yi. ah kon xaaral ma dafal gaaw moo gën faju. jërëjëf suma caabi. jërëjëf de bii moom da nga ko war a incha ah. xaaral ah, waay waay waay ràpp ak jàmm waay. Gambia National Insurance Company seet si leen ñu tey pour seen bépp wàllu insurance. ci arène bi seet boppam nag peese boppam ba am poids xam nga ne si li ñu làmboo mu defal waat ba jàpp gën leen a fab gën leen a neex ne ñëw naa nag dugg naa ci biir arène bi ku ma ñam seet ku ma mos seet laal leen ma seet ngeen xam ne wute naa mayonnaise yi cay ba mayonnaise kuy xew jëlal la ba mayonnaise ku bëgg lu neex jëlal la ba mayonnaise cay boo ko mosee boo ko ñamee <laughs> di nga xam ne lu la yaay ministère Moussa wax rek dëgg la ci la ba dana ko fi indi Victoria la mu nga nekk fële ca ten limans rek moo ko indi fii ci réew mi ñam leen ko maa leen wax léegi. dafa am réewul. wawaangi bul buur ba buuru saalu jàpp ku kañ ak kañ la. xam nga ni nag Gambie dañ fa demoon mu toj. dëgg la Gambie gépp génn Boubacar. Mm-hmm. ñu ne nag dañuy dellu si. am coming Pape Diouf génération consciente ban full ban kenn du manqué ñëppay ñëwaat gars yi ñu ne lan 24 fan la Boubacar 24 gars yi ne nag ña ngi jëm fa nga xam ne moom moo di ah Sénégambia Beach Hotel 24 waaye 25 ba nag ah 25 ba nag dana mel ni ba ngoor Jaay mbaa ma du noppee du ci bokk foofu fan la Boubacar foofu duplex lay doon duplex lay doon duplex lay doon in the house Pape Diouf duplex ca Gambia loolu nar na rëy de ndeysaan 26 ñu ne nag ah xale yi faaw ñu jox leen seen waal xale yi ndaw yi maanaam le petit bal des enfants bi ñuy def Dakar la ñuy toxol yóbbu ko biir Gambie. Mhm. Dream Park lay doon dimanche. Mhm. xale yi képp ku ñëw di boo ñëwee di nga am sa cadeau cadeau bu mag laa la dencal dama la koy jox te it nag bu loolu weesoo xale yi nga xamante ni nag ñoom ñoo doon def seen petit gàlle artistes yi yëpp Gambien yi Sénégalais yi ñoom ñëpp danañ ñëw bu ko defee xale yi nag ngeen mën a kontaan waaye guddi gi. Joko Birkama lañ jëm ci jëgu digga 26 ci guddi gi Joko Birkama man nak may ñëw and ndok pap du fa génération constante ak wa Gambia yëpp ñu toroxal seytane mais Gambie ne dor pas mais Gambie ne dor pas da nga melni témer yam nak ci ben bouté la ben la kon gay bëgg ya nga koy fay ki la bëgg mëno ko fay deug la Gambia pap du am coming yes Gambia DJ Books ak pap du wuyëkar dem na ci Barang, Anjarama. Abaraka, ah, Thank you. Noari. Merci beaucoup. Jokonjal. Emite Kati. QCell would like to thank our many customers for choosing the Gambia's quality network. Now, anytime you use your QCell line for calls, text or internet, you will automatically earn points for great items and goods such as mobile phones, umbrellas, hats, t-shirts, buckets, pans, kettles, cups, and much, much more check your loyalty points, dial star 445 hash. QCell's Hero Loyalty Program is not a competition. The more you use your QCell line, the more points you earn and the more gifts you can get. QCell's Hero Loyalty Program is just our way of saying thank you to our customers. QCell, soon your boss, the Gambia's quality network.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 ren ji mu emoog ñaar fukkeeli jataayam ak ñaar ñu si oo nag képp koo xam ne doomi réew mi la moo xam ni si biti it ku ci mën a ñëw ñu ngi laa wax ne bisimilah gàmmu gi gàmmu rëy la ku ñëw ba gis juma pipeline nga xam ne juma ji gàmmoom foog mu war a rëy la tax mu war rëy mooy la ñu dafa bari jumaa ji emul rek fi ñoo jullee naam foofu pare na waaye ba fi tey sax am na ay nettuwaay yu mu laaj waaye ci wàllu liggéey bi ñu ngi ci sooraa bu mag bi soo duggee ci jumaa ji ci biir kër gi wàllu càmmoñ ci weneen wàlla wa ci benn palaas ba itam yaa ngi fa gis ne am na ñu ngi fa sampa li nga xam ne mooy place jàppukaay bu ees bi ak office am ci kaw jumaa ji war nañoo nettoyer ko jagal ko ba nga xam ne li tubaab bi wax ne landscaping dalee ko ci fence bi ni mu ni mu bindoo fii mu tollu dañ ko war a daaneel ñu defaraat béré bi ba nga xam ne ku fu waay toll gis jumaa ji di nga xam ne fii dëgg dëgg dëgg dëgg màkkani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la loolu nag dafa laaj képp koo xam ne yange oyo ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah sandimbal ak sa góorgóorlu lépp lu nga xam ne def nañ ko foofu yaakaar naa ne ku ci def sa butuut da nga dencal sa bopp junni ëllëg